yàlla julli ci yonent bi di sant sama sëriñ mi sëriñ Babacar Sy li ñu dal metti na njabootu lëmb nga génne leen ci injustice depuis jeudi passé ñuy fanaan ci mbedd mi fii la ñuy lekkee fi la ñuy naanee fii la ñuy defee lépp am ay doomi ndaw sam papa hypothèque këram jaayul këram deful dara jaay doole la ñu jaay ñu doole nangu suñu kër génnuñ sànn ci bis gisuñu kenn ku ñu jàppale gannaaw yàlla sama yaay nga nee mag la suñu rakk yaa ngi nii amuñu fu ñu jëm bu ñu amoon benn kër dañuy bàyyi lii dem feneen mais amuñu fu ñu jëm metti na ba ci kanamu yàlla ku newul metti la daf laa dalul problème bi affaire bi tool la woon mbaaw waaw tool bi suñu nee nañ suñu maam moo ko moomoon suñu maam moo moomoon tool bi ñu jaay que neuf famille séddoo ko bi que neuf famille séddoowee nee nañu kayit yu ñu jaay xaw ma ci nekk daal ëllëg benn waay tàkke ñu def ñu nii génne ñu toroxal ñu ci mbedd mi nii depuis jeudi le 5 ba tey ñi ngi ci mbedd mi fi la ñuy lekke fi la ñuy naane fi la ñuy fanaan metti na ci xol ku ne mettiwul daf la dalul metti na lool ñun nag ñi ngi ñaan ci kattanu yàlla Alaaji Macky sàll Marème fay sàll bon volonté yi nañu xool lii li am Sénégal fii jaay doole la ku ëpp sa moom doole dóor ci suuf ëpp na nag ëpp na tey bu euh, dee euh, bu tey bu xaru daga noonu dañuy xaru waaye nag bu ñu xaroo lu ñuy fekk foofu ëllëg te alalu àdduna jarul dara alalu àdduna jarul dara kenn du dee ba yóbbu ba yóbbu alal gi sa dëkkandoo mun na def nii mu metti lool sa xol amoo ku la jàppale amoo foo jëm metti na ci xol metti na ak feebar bi am ñu tëdd ci mbedd mi nii di lekk ci mbeddimi mi xool leen ndab yi xool leen bagages yi trente personnes nga ci mbedd mi fan lañu jëm fan lañu jëm ban dëkk lañu nekk ban Sénégal la ñu nekk injustice bi métti na kumba am ndey ak kumba amul nday rek moo fi ne léegi koo mun koo ko koo jot dóor nangu alalam par la force kiy def lii nag nañ ko bàyyi ak yàlla nañ ko bàyyi ak yàlla man ngëm-ngëm lay waxe ngëm-ngëm lay waxe metti na nag ndax su ma xoolee sama yaay xool sama rakk day metti ci man waaye nag lépp dañ koy sante yàlla lépp dañ koy sante yàlla waaw lu waay def rek lu waay def rek ah. kenn amul leen seet si yi wala kenn ñëw fi état bi kenn jàpp kenn taxawu fi. maire ñëwoon na fi jeudi. mais hmm. boobu ba tey kenn gisul kenn kenn gisul kenn yàlla la ñuy wéttalikoo boobu ba tey yàlla la ñuy wét yi nag ñëpp ñu indi ay ñam ñu jox ñuy lekk mais munoo lekk munoo naan ndax ci mbedd mi ngay fanaan mu metti loolu ci biir xol metti metti fu mu ëpp fu mu fu rek. metti na man nag ngëm gëm lay waxee ndax damaa gëm yàlla te wóolu ko ma gëm yàlla te wóolu ko te xam ne metti na waaye yàlla dina ñëw ñun jaayuñu hypothèque wuñu defuñu dara am nañu ay këyit titre foncier bi mi ngi fii waaw waaye nee titre foncier bi jaratul dara ndax nee na jëkkëram jënd na kër gi mais suñ te suñ titre foncier léegi euh, lii la euh, nu mu tudd euh, morceau morceau suukar la waaw ba xool dafa jeex Lamine eggalil du Lamine nekk jarbaatu góor gi donc euh, li ma xam ci affaire bi mooy trois mois avant sa mort ndekete moom mi ngi daan dem tribunal du matin au soir li indi lii yëpp nag benn problème mu berger la boo xam ne ñoom seen maam bu juddu 1867 moo fa nekkam di bay donc bu mu gaañoo chaque fois xale di ji relève di ji relève di ji relève continuer dafa bay mais fi ñu doon bayee moomuñu ko patri domaine national la woon donc ñoom bi ñu demee ba nga xam ne Senghor ne woon ne ku am àll booy bayee wal dara dema nga wutal ko këyit parce que domaine national du alal ñoom ñu commencé di ko wutal këyit dem ba egg foo xam ne fu ñuy wax baay la ku ñuy wax sëy te moom diplôme ñëw benn jour soxla ko ne da koy def station donc euh, sama ñoom di jaay côté bi ñu doon bayee sëy soxla ko ak keneen ku ñuy wax Ousmane Sarr am fu mu doon bayee sëy soxla ñaari parti yooyu yëpp léegi ñoom bi ñu sëy ñëwee ñu ne ñun mun mënuñu la jaay suuf si moomuñu ko mais pen et yi nga xam ne ñun def nañ ko ci muy garab yi ñu ci def ak foofu nga xam ne ay jaan façon rab bu nekk nekkoon fi ñu léegi loolu nga ñuy dédommagé ñu jox la foofu sëy d'accord ak ñoom ak Ousmane Sarr sama ñoom di jaay ñoom seen côté jaay seen côté bi ñu nekkoon à 40 millions cédé ñu sede ko à à kii truc Sey Ousmane Sarr côté bi mu nekkoon aussi mu cédé ko a 30 millions. sama ñoom di jaay côté bi ñu nekkoon ñoom moom après jaayul signé wul kayit encaissé wul chèque séddalewul moom dañ ko fekk fii en tant qu'héritier jox ko wàllam li nga xam ne moom la war a doon moom it mu jël ki nga xam ne mooy encaissé muy Babacar Pouy moom nga xam ne moom la ñu délégué woon moom taxaw na ci kanamu télévision bi devant leen médias ne moom moo jaay moom moom moom moom moo recevoir moom moo percevoir chèque bi moom moo séddale xaalis bi ba pare bi ñuy dem amul fenn foofu ci àll boobu ci route de Rufisque fu ñu war a jaay ay 40 millions foofu du fekkoon ñoom tey dañ koy jaay c'est des milliards qui vont vendre ça donc ñoom dañ leen dédommagé si ay peines et soins yi nga xam ne ñoom nekkoon nañu fa ñu toog ba en 1984 euh, comment il s'appelle Ndiaga Ndiaga Niang pa euh, Pape Ndiaga Pape Ndiaga Niang ah s'est présenté ci ñoom ñëw ne leen papam un gouverneur nommé Ablaye Conté def ko may terrain boobu fekk na ñoom sori nañu jël nañ ko jox ko sëy parce que amoon na ay dépenses supplémentaires yoo xam ne ñoom seen doole munu foonu egg sëy Pape Ndiaga Niang attaqué sëy dem moom tribunal sëy battre ko fu nekk dóor ko fu nekk ba amatu fa dara léegi xaalis boobu sama ñoom nijaay bi ñu koy séddoo neuf famille ñoo ko hérité neuf familles ku nekk am 4 millions 800 ki ci war am am si sama nijaay ñu fekk ko fii jox ko wàllam mu jël donc neuf familles yooyu partagé wu xaalis boobu yow nga toog ba en 2007 dem ak dem ak sëy tribunal yéeg wàcc jëm kaw suuf sey terrain boobu nga xam ne ñoom bi ko ko koy jox bàyyi la ñu eggoon sëy dem ba impôt et domaine defar terrain boobu defar ko titre foncier def fa station waa ji attaqué ko tribunal ñaa mu battre ko fu nekk léegi man li ma jaaxal mooy benn titre foncier boo jël attaqué ko ni tribunal ñu gagné la ci nga jëlaat même titre foncier boobu nga retourné wu contre une seule personne boo xam ne moom jaayul héritier la dañ ko fekk fii jox ko wàllam daana ci def ay démarches mais en un moment donné daf leen ne man léegi affaire tool bi génn naa ci yéen xale yi tool baa ngi noonu ñoo ñu jël ko séddee ko à séddee ko AC donc léegi kooku. neuf personnes yu hérité benn affaire ñu fekk benn nit bu toog yore këram am ko à l'âge de vingt cinq ans 1959 lañ ko jox lañ ko jox këram lañ ko lañ ko jox te kii bi mu di ko fay ba 1964 matal ñu fekk ko ci benn terrain boo xam ne moom dañ ko jox wàllam jox keneen wàllam ñu ne ko moom léegi yoon fekk ko fii ne ko yow 4 millions 800 ya nga lekkoon ya sa morom yi lekkoon ñëpp lekk ko tey yow kese yaa koy fay loolu moo indi lii amul leen sama nijaay titre foncier bi mi ngi fii ci Mbor 4 millions 800 yi ñu ko joxoon bi ko koy enveloppe bi mi yëpp mi ngi woon fii taylewul këram bi muy fay këram mësul le banque mësul nee na mësul xam fu banque nekk à l'âge de 25 ans la am këram fay ko dans des conditions très difficiles dëkk seeg njabootam njabootam nekk fi depuis mille 1959 lu 9 personnes lekk lu 9 personnes seddoo ñu xool kenn ñu ne comme yow la ñuy def condamnation solidaire parce que yow yaa ci am benn bien immobilier boo xam ne yow rek la ñu mën a topp yoon topp ko jël alalam toroxal njabootam ñii nit ñi nekk ci mbedd mi di taxawaalu ay góor ay jigéen ay innocent yoo xam ne doonuñu ci dara ñu fekk leen exproprier leen jël seen alal ci nu dul yoon ay xale yoo xam ne ci mbedd mi la ñu nelawee depuis une semaine depuis plus de neuf jours xale yi ñu ngi nelaw ci mbedd mi góor jigéen boo demee ba parfois ba 2 heures du matin nga génn doxantu ñëw xool boo ñëwee sa yaram day daw xale yi war a jàng école bu ñu xëyee duñu sangu duñu ndékki bu ñu wàccee talatuñu togg añ dëkkandoo yooyu tubb ku nekk ñëw indi bool kii indi lii kii indi lii ñu dajaloo mën a lekk ah ak feebar bi am ci dëkk bi benn autorité à part le maire de la commune jaaru fi te yëg nañu liy xew internet baa ngi fi réseaux sociaux yaa ngi fi lépp a ngi fi télévision yi ngi fi jooy nañu te presque depuis 14 ans ñi ngi xeex benn com ñi ngi mën a benn combat boo xam ne ñun bu ñu defee ne xeex nañoo ak waa ji ba bàyyi rek ndekete waa ji suuf mi ngi dugal man je sais pas tribunal naka la atte lii léegi nag ñun li ñuy laaj li ñuy ñaan mooy les autorités étatiques les autorités religieuses les organisations de droits de l'homme ñu ñëw séjour ci desier bi toppaat ko saytu ko ba xam en réalité lan moo ci nekk parce que borom kër gi mësul tey la këram titre foncier baa ngi nii fan yee dañuy jéem a def benn médiation ak moom bi bu ñu ñëwee woo waaj waxtaan ak moom pour xool ba xam ñun dañ ko war a dédommager walla dara pour kii mais affaire le chat la souris la la lay lay nekkanteeg ñun kër gi jël nee na jël na ko si ñun suñu titre foncier bi ñu yore. xëytu suukar sax gu gën a valable téléphone la ko waxee ñun moo moom kër gi yoon jox na ko jaayu ko soxlawu ko bëgg ko utiliser wu ko mais si loolu waxu lan la dem naa man ba laaj ko yow léegi yow sëy mi nga xam ne danga ko jaayoon terrain sëy en aucun cas du la ko joxati sëy parce que foofu sëy léegi station ba sëy jaay na ko jaay na ko waa Total jaay na ko ay tubaab li mu ñu xelal naan ñu. dem leen ci sëy mu delee ma sama terrain ngeen ñëw ma jox leen seen kër ñun ñooy dem seeti sëy en vertu de quoi sëy kayitam la yore titre fu bàyyi lañ ko joxoon mu dem ba def ko titre foncier am lu leer man nag xaw ma yow fan nga jëlee say kayit ba defaraat sa kayit ba yoon dox la ndam ne la am ga kayit amatoo fa kayit yow état gouverneur moo la mayoon en 1984 état bu la mayee domaine national nga toog deux ans defoo fa dara amatoo fa dara donc li ñu bëgg mooy Macky Sall le président de tous les sénégalais nga toog saisiru ci dossier bi ñun mer nañu mais it ñi ngi ànd ak suñu xel ak suñu sago di wax ak ñi nga xam ne dañoo am xel ñi nga am ne dañoo am xool toog di ñu déglu parce que lii metti na lii ku ne mettiwul rek c'est parce que vivre ko ñu nekk ay nitu xel moo tax ñu wax xale yi ñu ñëw tëj bunt bi kasre ko dem seen yoon ñu nekk ay nitu xel jàng xam yoon xam fi ñu war a jaar moo tax xale yi bu ñu ñëwee ne dañuy daj ba dañuy def li ñu ne non mais ku ne lii méttiwul sa papa wala sa yaay wala sa rak wala sa mag da dundul mais lu mel ni naka la état di jéggee sax ah toog les mains croisées naka la organisation des droits de l'homme ñoom ñoo xam ne chaque jour bu état bi defee dara ñu ŋàññ kaneen ak kaneen ñu gis lii toog di ko seetaan mais lii c'est inhumain lii c'est inhumain où sont les organisations de droits de l'homme donc loolu la affaire bi ngeen waaw maanaam def na ñu recours mais man li ma jaaxal mooy waa ji li ko yoon jox ba mu saisir kër gi mais moom la toppee woon sëy ba sëy gañe ko ban kayit la am sëy moo am kayit sëy gañe na ko naka la ama tourné waate encore pour am kayit pour toppee waat kër gi pour toppee waat ñooñu mais bu leen di topp sax ñoom waa mbaaw la war a topp affaire bi sa s'est passé en en un problème de verger que neuf personnes se sont nga ñëw ciblé kenn nga ne kooku moo ko war a fay bi ñu ñëwee dañoo ñëw dañoo bett parce que xam nañ ne bu ñu bettuloon ce sera pas facile dañoo xaar ba nga xam ne dañoo xaar ba nga xam ne nit ñi dem nañu poroxaan non bu ma kenn waxal bàyyi leen ma wax man je connais bien le dossier dañoo xaar ba nga xam nit ñi dem nañu poroxaan police ñëw def li ñuy def du leen neex ñu jël sànni xoolal di def lu leen neex xoolal indi ñu fi ay huissier dañu def for ay mbër ay sàcc parce que am na ñoo xam ne sax dañu sif yi ñoom bu ñuy génn dañu sif seen portable jël seen portable xoolal man am nañu am na benn moment boo xam ne mën na leen mais da leen def ndànk parce que ci kër gi am na fi ay locataire ci commandant bi laa ñëw ma ne ko kër gi am na fi ay locataire pour que ngeen ma ñu 10 minutes ñu woo leen pour nga pour que ñu mën a génne seen bagage commandant bi m'a fait savoir que ñoom yor nañu kayit boo xam ne tribunal moo leen ko jox tout ce qu'ils trouvent sur leur passage dañ koy gaspiller sànni loolu la ma tontu en vertu de quoi ñu sax boo koy génne nga génne ko d'une façon humaine toog négocier ak moom wax ak ñoom commissaire bi bi nga xam ne moo ne HLM commandant sax commandant bi sax moo ko tane parce que commandant bi je le connais jagaragu day naxanteeg nit ñi di wax ak nit ñi commissaire bi da ngay ñëw mu ne doo dugg en vertu de quoi nga moom sa kër ñuy sànni sa bagage doo dugg ak embarqué la xam nga moom lu mu fi nekkoon embarqué la parce que yoon moo yàlla moo ko may garat boobu mais un jour dina jàkkaarloog suñu borom yàlla moo ko may doole boobu bu ñu tase woon su mbedd moom sañu ma xool man sañu ma ko xool mais taxaw embarqué la naan bu n'entrez pas man ne ko man damay dugg je rentre ici en vertu de quoi loolu fan la ko teg nous sommes dans un pays de droit Macky Sall le ministre de la justice les autorités étatiques les autorités religieuses saisissez-vous de l'affaire ngeen le ko lii c'est trop bu dul woon commandant bi tey keroog moo fi nekkoon di temporiser mais si c'était le commissaire kese fii beneen affaire ngay fekk parce que xam nga fi nekkoon embarqué la c'est quoi loolu waxu landa la moom il est là il pour nous moom commande commissaire bi moom ñun la fi nekkal kon donc am na noo xam ne commandant bi nga xam ne moom moo ko yilif kooku ni mu doon tempérose nit ñi moom noonu la war a doxale mais il l'a pas nag dañu fekk nit bu liggéey alalam sonn ko di dunde noo xam ne buñ la ko waxoon tey nu metti yor njabootam mais nag kenn xamul ko dara di dund dans la dignité kenn du ko coupé ndox kenn du ko coupé courant à l'âge de 25 ans kan la fi sa baay am kër. amul moom à l'âge de 25 ans ñu attribué ko këram mu tund fi ba am 75 ans. ah ba am 78 ans bàyyi fi njabootam ñooñu amuñu fu ñu tëdd am amuñu lu ñu fayee école amuñu lu ñu lekk amuñu lu ñu naan nga ñëw génne leen si biir xanaa mooy dee leen. commissaire bi lu mu def mooy woo ay nit ne leen ay ñu rey leen ñoom li ñu def ak huissier bi ak ña def loolu yëpp. loolu et doucement doucement réew ñu kenn tojuñ ñu dara da pas de violence mais lii c'est notre droit parce que dafa am organisation yoo xam ne tey tey tey tey du potalam bu tojoon Macky toj ko ñu commencé Macky Sall Macky Sall mii mais gis nañ ñoom lu ñu wax dañ ñëw wax ko lijjanti ko les droits de l'homme ñëw leen ngeen lijjanti lii c'est un problème très sérieux des êtres humains des enfants des innocents ñu exproprié jël seen kër bàyyi leen ne ci mbedd mi seen yoon nekku ci te ki ko def jabaram mi ngi dëkk fii à deux ki ko def doomam am na torondoo ci biir kër gi mais man lii la je comprends pas il y quelque chose il quelque chose flou noo tudd tur bi nan la Fat Diop Adja Fat Diop dëkk waagu ñaay numéro deux cent dix-huit may sama jëkkër ci faratu yàlla ak sunu sunu motu mu jënd këram gi dugal na suñu njaboot gi yëpp bi muy jënd kër gi benn doom moo juddoo Medina muy taawam ñu si des ñëpp fii lañ juddoo fukki doom ak benn yëpp fii leen juddoo tubaar tubaarkàlla macha allah ñu am naqar tey ma am naqar bu ma méttee métti ndax sama jëkkër bu demee àllaaxira sama nawla bi ma fi newaloon dem àllaaxira ma am lu ma naqadi lool benn waa jóge sa àll ba problème bi mbaaw la ne. suufas mbaaw la li xale yi wax mu tëb daanu si kër gi ni moom la bëgg jabaram la dëkkal mu di ko mu di ko wax rek jabaram sama sama sama xarit la sama doom la sama lépp la waaye yaakaar naa ne ab saaj saay du ma ko def moom mu def ma ko nangu sunu kër xale yi fanaan si biti di lekk si biti di naane si biti di nelawe si biti man dem na abal kër goo xam ne bu guddee may dem fanaan bu faj fajaree ma ñëw toog kenn sangootu kenn naanatu kenn defatu dara may ñaan ngir yàlla yonent Macky Sall mu dimbali ma sa yàlla tax man samay bët neexul samay tànk neexul jaboot gaa ngi jooy guddi jaboot gaa ngi jooy bëccëg jagam moo dëkk bi moom lépp ma koy ñaan ci sunu borom mu jàppale ma sa yàlla tax ndax sonn naa fa sonn du jaar Marème Faye Sall yaay jaboot gestul jaboot yi jabootu jirim a ngi nii yore ay jirim rek laa yore ñëpp a ngi ni toog kenn jàngatu xale yëpp seen jàng yàqu na juróom-ñetti fan yàlla sama njaboot gu ndaw bi yëpp kenn jàngeetu ñëpp ngi tëdd di nelaw mare maa ngi lay woo si faratu yàlla suna noonu di malil sa yaay sa yàlla tax maa ngi lay sant di la gërëm waa gu ñaay kenn desul ñëpp a takku ku sax bopp boo jaaree fii rek jooy ñi lu yëpp ñu ñaan man xulowuma xeexuma werantewu ma suñ ko doon def ba léegi kon ba lu am na am na ba yàgg waaye damaa bëgg chef de l'état nga dimbali ma dimbali ma sàll sa yàlla tax sama kër laa soxla soxlawu ma dara sama kër rek laa soxla jaboot laa aw ma fu ma jëm jërë ngeen jëf maa ngi ñaan su yàlla Ira Ndaw sa mbokkum taalibe seex mi ngi lay ñaan si jëmmi sëñ Babacar si mi nga yaakaar sa mbokkum taalibe jaaxle na sonn na sama kër la ñu nangu gannaaw yàlla nag yonent ba maa ngi lay woo Ndaw Kounda maa ngi ni toog ak njaboot gi ñu wër ma maa ngi lay ñaan nga jàppale ma sa yàlla tax jullit ji ngay jàppale boole ma si ndax sonn naa fa sonn dem juróom-ñetti fan yàlla maa ngi si toog waago ñaay sonn lool ndaw di dégg sa tur di dégg sant waaw dimbali ma sa yàlla tax ndaw maa ngi la koy ñaan si kattanu Moustapha si jëmmi sëñ Babacar si mi nga yaakaar gannaaw yàlla yonent ba nag lépp a ngi seen loxo wasalaam lañu bëgg suñu kër lañu bëgg suñu kër lañu bëgg suñu kër